naafila 1 hmm. guddi gi njëkk ci weeru koor sopp nañ ko ci julli fukki raka raka bu ci nekk mu jàng fatiha benn yoon jàng inna anzalnaahu jàng xul yaa ayyuhal kaafiruun jàng xul huwallaahu ahad bu ci nekk ñaari yoon yàlla dana xaraamal ci moom safara te bu ñaanee xaajoom borom bi subhaanahu wa taala dina ko ko fajal ku ci bëgg yeneen ni leeral nga dellu ci xurratu ayni bu Serigne Souhaïbou Mbacké page 141